عليكم ورحمة الله وبركاته فتحطاه هاب يرساق يا ميكي رفت وهب لي وسقني كنا أرى ضيقي أتي عاجلا بالوشي مع مرض حتى إلا كنا يسر جوعين يتوى وحمني وقني أدى الله وتجبل لسا مسكنا كسماء والآدي وهنو بيا مساكن يروب مسكنا أجيب وسلم سبحان حسن محمد وتوفيق الله asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñu ngi siyaare ñëpp rawatina tee na suñ boobu sàkku ne daa bëgg ñu waxtaanal ko ko ci sëñ Mbakke Madina waaw moom kon kon Modou am na ko ko sàkk ko loolu xam naa xam naa ne rek bëgg ñu ba bëgg ñu waxtaanee rek nee na lañ am la leen ko may kéem tolluwaay kattan lañ ci xam. waaw loolu it lu am solo la suñ bag ci ci Madina waxtaanee war nañ ko yaakaar naa ci ci waxtaan wax melokaanam wa nga xamante ne aarif billahi le taala aarif billahi taala bu ñu waxtaanee melokaanam wa dana leer si la ko la ko sëñ si daam waxoon si daam si daam Abdourahmane loolu la ko waxoon ca boomu ba mu ba mu ba mu ji léeg seex wuy tëggu ba mu ba mu jógee njaareem noonu mag suñu seex te suñ te suñ Mbakke Madina soo ne woon ko demal ci sa maam su suñ daam mu ñaal la ba mu demee ji léeg ab seex buy tëggu suñ bi suñ daam tàng jër di di di di bàgg parce que mu ne ko sëriñ xanaa xanaa àndoog tëgg moomu mu ne ko déedéet boo dee ab seex bu buy tëggu la mu ne ko waaw yow de soo doon am ngooñ maay sam. saarit saarit moom mooy yax yu yu woowee ca ngooñ ma xam ne façon du ko mën a jëfandikoo ne ko de sa samaam day seedaloon na na ma ne ma murit sadex nga loo loola kon moom xam ne sa sëriñ daam moom mooy ku muy sam saarit ko kon yow kaamil nga kaamil nga maanaam nag sëñ Mbakke Madina moomu xam ne wariyan la wariyan ko ko sàmm la woon sama baay moom ci xamoon na ko ndax sëñ Manaar moom la sëñ Mbakke Madina sàkkoon ci sëñ Manaar moo jox ko sama baay xam ne sama baay nee na buñ masaa nekk jag raw la booba nee na booba buñ masaa nekk wax ne boobu ñooy bokk benn néeg ndax ndax soxna Aminta Lo nday sëñ Mbakke Madina mën naa wax jël lay si sama am tulo lay si si Mbakke Madina ma demoon ci sa sa say mënaar laaj ko sa sama baay xam naa ngir ci wetu liggéey rek xam naa comme liggéey mu ne mu ne soxna soxna Aminata Lo wax ne sa sëñ Mbakke Madina na ngeen di bokk benn néeg di bokk benn lu bulal sama baay nee na ba mu bi ko si si say mënaar liggéey ne ah kooku tër bii de kon dana neex waaye kon kon. bokkuñ ñu lal ba waaye ñoo doon bokk bennum néeg sama bàyyi nee na bu nee na bu ñu tëddee bu sëñ bi bi taalee lamp bi teg ko ci montre bi muy muy ñetti waxtu mu jóg ba lëgati ba lëgati nga xamante ne te ne man mi seetlu woon naa sëñ sëriñ bi min wi une heure lay fatu une heure ci une heure maanaam bu bu tubaab si séeréer mu jóg ba la ba la dëggati nga xamante ne sama baay nee na dara wax naa it du guddi guddi ku ñëw borom borom yitte ku ñëw agsi rawatina nag ku ndox suuf laal wala xeet yu yu mel noonu wala kilifa goo xam ne daa am jafe-jafe ci yaramam bëgg ñu ñaal ko. booba sama sama bàyyi nee na daañu toog ba xaju guddi kilifa kilifa yëglu ñu ubbil ko suñ suñ ba daal di laaju kaas ñu def ca ndox mu wax ay baat lu ja su ëllëgee sëñ bay yónnee di sant waaw loola kon kon nga xam ne waaye nag sëñ ba boobu laaj laajam bi lan moo ko ko may Cheikh Moustapha dalee na tër bi woon sëñ Mor Ndiaye Bourding sëñ Mor Ndiaye Bourding dégg naa ci moom sëñ Mor Ndiaye Bourding murid saalix la woon Cheikh Moustapha ko ko bindaloon ci aw kayit seetal ko ne ko Modou Modou Sarax nga sëñ Mor Ndiaye Bourdin moomu nee na nee na léegi li ko li ko booleeg sëñ Mbacke Madina ginnaaw sëñ bi sëñ soit da ko gis ci kër gi mu nekk di ak kees goo xam ne da doon topp putoo di ko bale kon sëñ Moussa xool ko fa ab diir woo ko ne ko ne ko ah yow xanaa xëy yëgoo ne ne ku ku ku baax ki dem ñibbi na Tuuba nee na nee na itteem jooju jëm am na xanaa sëñ Moussa daal di koy jël daf ko ci boppam bi bis nag Cheikh Moustapha nag jël sa sëñ sa sëñ Mbacke Madina ak keneen da daal leen di daal leen di duggal ci ak keer sëñ Mor Jaay bu di ngay nettali daal di ne kat daal dina sëñ Mor Njaay maanaam kat ci kees gi lépp loo xamante ne dugalu moom ko ci sama loxo mu fi dugg aw ñeem ak am ndox daal di fay tëj Mbacke Madina moom ak keneen ay bis bopp nañ ko tëlee tëjee ci ay bis sëñ Mor Ndiaye bu dig nee na kenn ci ci ci ñoom moom daana yéeg ca seng ya di dem ci kër jigéen ña di wuti lu mos moom waaye sa sa sa sëñ Mbacke Madina daw ko ko def ndax la ko bàyyi si sax bay tedd nee na sëñ Mbacke Madina sëñ bi na tere woon kër jigéen ña nee na su ko way juróom wu tedd ba soxna Aminte la Massa woo ba ko jox dara day bañ ñaan nag bàyyi sëñ Mor Ndiaye bu digg ne bàyyi bi bis nga jeexee sa sa sa Cheikh Moustapha ne ko de daa am lu ma doon seet gis naa ko looloo tax nag sëñ Mor Ndiaye bu digg daal di ba mu gisee wutul Cheikh Moustapha mu daal di dem ci sëñ Mbacke Madina kon kon loolu kon mel mel na ne ne kon taxasuf mel na ne kon dund suuf yaa ngi gu gu métti la. xam naa ne ndax na ko suñu mën jaay bu di nga waxee kon ay bés kon daa mel ne kon ñoom ba daana néew daa mel ne sax day do do doxe na na ceex néewu ñoom wax ndax man mii de day ci ca bayti bayti ne digg ba ceeg dem naa fa sama bàyyi bokk ak suñu mbokk ma dina aw ñam ba noppi daal di génne bool ba sama bàyyi gi génne ko xam ne ne ne ne maa fi la xanaa de wala dama daal ko dama daal mooy li li ñu toog jëfëriñ ñeex to ceebu ñeex bi ñu toog jëfëriñ daal di ne ma fii la sëñ bi doon teg loxoom noonu la ma ko waxee ba ma xoolee ceebu ci ceebu ñeex boo boo xoolee xam naa ne na na mu ko doon kobase na mu ko doon faxase kon. boo boo xoolee néexut a xam ne ne am na ku ko ku doon daal fii nga xam ne kon loola kon loola sax ñàkk a ñàkk a ñàkk a wala néew néew ñoom nga taxoon na sama baay Madina xam naa ko lu yàgg aada woon na di di di añ takkusaan bu takkusaan jotee mu laaj sëñ bi ndax ba xam ndax ndax mos na dara. bu dee mu mu musul dara mu mu mu dem jël ci ndabam andil ko su su su soree nag nee naa ko musul dara mu ànd ak mag ña ñëw ñëw jëfandikoo sama baay nee na sëñ bi ci mujj gi sama baay ci nee sëñ bi mas na koo wax ne ko ne ne ko xanaa xamoo ne yëg naa ne yow rek day yaay seet ba xam mos naa dara musuma ko. loolu loolu loolu loolu loolu lu kon nga xam ne kon ni néewu ñam yi foofu sax danaa fi dugal loolu am solo ku ko mel ne sëñ sëñ sëñ Abdourahmaanum Daarul Moxti soxla woon na ku mel ne sama baay boobu waaw ko soxla la la woon na ko koo xam ne koo xam ne dana ko toppatoo ca wàll ga mëniwut ndax ndax ku mel ne sëñ sëñ Abdourahmaan njariñ la la mu am ci ma ma ma naa nekk man fii ci Touba mu nekk Darou Moti ma yëg ne sëñ Abdourahmane na nga ca ca ca Darou Moti mu mu muy tirima man moo ne sëñ Abibu daa wax naan buñ ne sa buñ ne sa sëñ Saliou ngi ci ci ci Touba rek day doy na ma waaw ku mel noonu nag dañ dañ ko war a saytu xam ne ko ne ne kon ay doomam yi nga xam ne ñoom ñoo sës ci moom ñoo ñoo ñaa ko waroon tërbiyewu ñoo ko waroon toggal. togg ga rek mooy la soxna muslimatu moom sëñ Tuubaa waxoon soxna muslim sëñ Basiiru moom joxoon sa sa manaar keroog ba mu ko indee yóbbu ko ci ci ci waañ wa daal di daal dina ko kaay moo kaay moo wan la nu ñuy toggalee mag daal di jël ndawal ga dëbb ba mu mokk tum tum naa jël ndawal ga dugal ci cin la baxal ba mu ñor mu mu mu sotti ko ca toq sax dëbb ba mokk mu del delawaat ko ca ndox moom ndox moomee nga xam ne moom la ko doon toggee daal ni ko ñii la ñuy toggale mag ku mel ne si Sëriñ Abdourahmane bu amoon doomam joo xam ne day futtiku di ko toggale noone aw ñam dana dana dana dana baax lool li li li may wax nag xam naa ci dara ndax ndax bokk naa ak moom tëkkusaan suuf moom si Sëriñ Abdourahmane añ boo xam ne xam naa ba ca bëccëg la woon ca bëccëg ma nga seet dugg yi ba noppi dëgg këng nga nga xam ne neexul dara dara moom yaakaar naa du loola nag bu amoon doom joo xam ne moo ko moo koy tërbi yow ngir ne Sëriñ Abdourahmane ak nekkam fi njariñam la moom du doom joojee njariñul mbooloo mi léegi loolu loolu lu am solo la loolu rek dama ko doon dama ko doon jàmbaas ci sëñ ba Kamadine rek nga xam ne doxee ni mag ña nga xam ne sëñ ba Kamadine loolu sa sama baay mu mu mu amoon xam ne ni suba teel gi yoor yoor bi sama baay moo ko daa moo ko daa toggal lax ba faraw faraw loola bi set soxna nay mu mi rek am na fi am na fi am na fi bis boo xam ne dañ na sëriñ bi de xam naa day teel la xëy maanaam naa subaa day teel xëy soxna yi mu nag xam naa fasoo wuta togg laax ba ndax yaakaar ne du fi xaj ndax yor yor lañ ko daa bu tàng lañ ko daa togg ñu ñu xëy ba yor soxna yi mu dem ci kër ga foofu dégg ngeen suñu mag bi mu jàll fa mu jaar fa nuyu ko suñu suñu suñu wàkk ma di ko tooñ naa ko ah kii ba de moom moom laa doon xaar xam ne nga xam ne kon loola loola kon lu am solo la waaw koo xamante ne dana la dana dana la la la mën a yittewoo kon sëñ ba ci ci ci Madina nag doxin wa nag Cheikh Moustapha nag da leen a toppatoo woon moog suñu Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ñooñee da leen a toppatoo woon nag jox leen ay bagage ay bagage tur yàlla yi nag da da leen ko daa jox sama baay nee na sëñ Mbacké Madina nee na ko Cheikh Moustapha bis ma mas leen leen na rëdd fi suuf ab xaatim def ca dugub bi bi suuna jël sarale gi sotti ca dugub bi suuna ja ne ne sofeet ba focc Cheikh Moustapha daal di di far xatim ba daal leen loolu loolu kat amu solo nga xam ne ne ne kon kon kat Cheikh Moustapha kon mi ngi leen di wax la ko xam ne ko kon ko kon kat am na lu am waaye am na leneen lu gën a wér loola am tur yooyee daana leen ko jox nga xamante ne te ne kon waajal nañ leen ci ay tur yàlla. loolu yi nag bo bokkoon ci doxeenu mag ñi nga xam ne maanaam murit gi léegi da ko fàtte maanaam murit murit murit gi léegi fàtte na tur yàlla waaw te te noonu ko si sëñ sa sëñ Madame Diop waxee ne sëñ Tuubaa mi ngi daa jare jàng alxuraan si sikkar tur yàlla jàng xasiida ak liggéey bu metti al istixdaamul kasiir noonu la ko waxee ca Irwa ñeenti ñeenti ponk yooyu moom la sëñ sëñ waaye daa yore sëñ sëñ Lamin yoo xam nañ dara ndax moom moom moo doon séquestre particulier kii sëñ bi njëriñam Jolof la ko tàmbalee ba njëriñ ba njëriñ loolu loolu loolu loolu kon sëñ Bakka Madina it kaamilu lu alxuraan bi suba ngoon la ko daa jàng suba teel man daanaa ko suba teel gis naa ko ko mu nekk di ko ko ko jàng suba teel. xam ne seeti rek doon wala yooyu suba teel fekk naa ko fa mu yor kamil bi njëriñ Madina suba ngoon ji nag benn sërifu naar totoon totoon naa moom sërif seer Fall la àndaloon di jóge Tingmantin ñëw fa ñëw fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi ma dalal leen sërif seer Fall day sama soppe ngir yàlla yàlla ko soppaloo mu sopp ma rek ngir ay mbir maanaam maanaam da tey sërif ba ba wax ne si Musaa Lo nee na ko moom si si si Abdourahmane Lo nee na ne ko laaj naa si suñu mbokk ma de ne ko lu tax ngay wàcc kaayil bi ñaar yoon mu ne ko bañ jógee njaareem si suñ tubaab waxoon ne na ngeen jàng alxuraan bay na ngeen jàng alxuraan ba saf sàpp ci seen yàpp yaram yi ndax lu ma am ci laa ko amee ci ci ci ci ndax ci lu ma am ci laa ko amee ba dikkee si seen suwaan leen kon na ngeen sasoo di di wàcc kaayil bi bés bu set benn yoon. tun naa wax ji nee nu fasoo di wàcc kamil bi beneen bi bukku ja ba mu am ba amee loola sëñ Mbacke Madina ne sëñ Soxla ne ne sëñ Mbacke Madina ne ko ma xam nag ne sëñ Seex amul jot ga ba fasoo man su su ma xëyee wàcc wàcc sama sama bopp su ko ne wàccal ko xam nga xam ne loola kat bu yor-yor bi nag jukki ci xasida ba yor-yor bi la ko ko daa jàng gis naa ko Madina Madina jukki xasida bi bu xëyee suba teel. jàng kamil alxuraan bi wàcc ko bu yor yoree mu yor ab jëkk bi ci xasidaam su takku saanee nag bu jàngal sa sa sëñ Cheikh bu som loola loola loola lool xamoon naa ko jox maanaam maanaam maanaam nag sell lool rek sell lool sell lool rek ku xam sa sëñ sa sëñ Bamba Mbacke Madina sëñ Abdourahmane Daaru Muti boo boo ko gisee melo waangoog melo waangoog waaw nga xam ne kon lu ko kekkee di rawee kon xam naa day ak jëgle ak ak démb ja waaw waaye kooku kon sa sa sa Sëñ Abdourahmane boo ko ne jàkk rek mooy mooy melaw si ba ki Madina ba maanaam ku maanaam maanaam kuy joxe ba jeexal tàkk la it ku ku ku ku kuy joxe ba jeexal tàkk la su moom su su suturaal ko saa bu bu soxlaal loolu teew waaw maanaam maanaam it bokkam yëpp ku ku ku yaakaaroon. waaw ndax am na sax doomu sëñ sëñ Bamba joo xam ne doomam mbiri dina ba njàkk ca lool daa daa neen nañ ko yóbbu ca sëriñ lu lu ci ci wax rek xam ne te te ne sëñ Saliou daana defee léeg-léeg du xadara Madina waaw loolu moom moom dañ ma ko connecté sa sa sama baay moom ma ko connecté lii sa sa sëñ bi xaajir moom daa fa ñëw am fa ñetti fan moom ñetti fan Madina waaw si si si moom daana fa yendu si. ci la mu fekk si biir fekke naa ko ay yoon moom mu ñëw fa sa sa sa sa bu mii Touba gi su su ma saa jógee ca armeel yi guddi daana fa ñëw gane si ko xanaa moom su gane si si si ba dina guddi la koy gane si amoon na na wàcc ci ci ci waay booba ñëpp rek ñëpp ko fonkoon moom daanaka ndax meloo sa sa sa sa baay nee na day léeg-léeg da tax ñooñu fonkoon ko ko ko lool nee na dina joxoon cër boo xam ne sax foofu ñun ñu ko woon. ndax moo leen ji jiitu ci ci ci yat ba tax bu joxe leen ciirub sëñ Tuubaa ba la la may tëjee rek Siblaay Jaxate nee na su su bëgg ba dina bi ko sëñ Tuubaa bi ko Siblaay ci mujj gi bi bi mu joxe addiyee doomi sëñ Bamba yi te boole ko ca si si si Siblaay Jaxate laaj ko ne ko lu tax nga nga ciy boole sëriñ mi ne ko sëriñ mi kat damaa sëñ bi waa këram yëpp da dañoo tase fa moom ma gis sëriñ ca biir. mbooloo ma ma laaj ko ne ko ne ko sëriñ mi da da da caa bokk mu ne ma ci yéen la bokk salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu